lii sëñ Moustapha wax nga jël relais liggéey bii da ko yóbbu foo xam ne bokk def mu nekkoon ndax di yow du man du keneen sëñ Touba tànk gannaaw tànk kanam rek la kum mën a doon buñ langam ji sëñ Touba ko moom ñu yaa nekk ci kanam buñ xoolee li ren bu déwénee buñ xoolee dinañ gis leneen lu bokkut ak ndax loolu moom sëñ Touba yàlla ko mën ku yàlla womatal loo xam ne mosu kenn te dootu koo womatal kenn sëñ Touba rek ñoo إلى هذا الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن لست أشك أبدا في كون جاء البدء إليه في كون kon desante yàlla bu baax te góorgóorlu te xam ne liggéey doo mën a moo fi nekk waaw booy liggéey liggéeyal ba mel ni fi jóg booy jaamu yàlla jaamu yàlla ba mel ni fi jóg te dama ko waxoon fii keroog sëriñ bi moom xam na lépp yàlla defal na ko lépp man na lépp te noo ngi ci gannaawam bañaluñ ko dara kon kenn du ñu mhm. kon ñoo ngi la si seigne Moustapha ne mo mo moom am Anda am njaboot sëñ Baara yëpp ngi andando njaboot Cheikh Sidi Mokhtar yëpp ñi ngi andando di la ñaanal ndax seen ak Cheikh Sidi Mokhtar ndax lan ak ñaawul werante kep juroom ñet ak kenn mosu ko faa dégg werante kep muy man muy keneen ku mëna a doon ka gën a kañ jàpp sax ki mo ko gën doon bu dikkoon ne nangata donte loolal ak nu mu mën di demee dana ko màggale sëriñ bi ba def ca leen ba def ca lam ca war a donte xam na ne loolu nii la wala neel wala nangam it dana ca def ca lam ca war kenn mu musa def mus juróom-ñetti at yi kenn musu cee dégg kàddu boo xam ne bi kàddu boo wóote dégg kenn musu cee gis loo xam ne loo wóote gis te loola na ngeen xam ne jàpp nañ ko téye nañ te bu leen wanoon gannaaw itam ngeen daal di ne fa teg gépp loola mu yam fa duñ fa yam de ndax njaboot sëñ Tuubaa ngeen ndax sëñ Sidi Muxtaar moo waxoon ne fii li fi ne sëñ Tuubaa kon def te kenn mënu ko fee jël kon euh, ku leen jàpp jàpp jàpp alalam ku leen bàyyi bàyyi alal loolu moo ko wax ci noppam mooy dëgg kon lool jox na la firnde ni suñu borom moom nopp na ci lépp kon ñoo ngi leen di ñaanal bu baax yàlla suñu borom bàyyi leen fi yàlla suñu borom may leen yéen yàlla suñu borom defal leen kattan ba fi ngeen bëgg a yóbbu liggéey bi ñu ngeen yóbbu en tout cas fa sant tàmbalee ba fa sant yem sant dañ ko sëñ Fatou yéen ñu fi toog itam nekkal moom ku ci xam ne njaboot yëpp koo ci xam ne wute ku ngeen gis mu jógee ci kër gi rek cër ba ngeen ko war a jox di ngeen ko jox ngeen kër sëñ Tuubaa bu mat waaye nag sëñ Baara yi tamit nag am njabootam jox ngeen loolu moo war a na yàlla defal leen jàmm itam ñu yàlla dégg di sëñ aada yi tamit rafet nañ jox ci moom ndax faatu ci mbas faatu fa jël ajjuma doomi sëñ xalifa sëñ eh, tey sëñ Tuubaa teew ci sa jotaay mbooloo mu toll nii teew ci sa jotaay ndax au moins mbooloo mi am na ca kenn ñu teew fii keroog am na ci kenn koo xam ne fu mu yàlla jëgg ko te kenn xamu ko même ci mbooloo boo demee mooy ki ci gën a fekk bi di ko ko doo dugg ci bunt yàlla doo kon nag mbooloo ci la lépp na jamaa kon ñoo ñoo sëñ Moustapha nee na ñu ngi fedd li wala ñu ngi fedd li ñu ngi feddali ànd liggéeyal sëñ Tuubaa bi ñu ngi feddali cofeel bi ñu ngi feddali xaritoo bi di nga xam ne yéen a nga ko toppee ca Seex Sidi Muxtaar ba yegg si fii ci moom ba mu ko wane ginnaaw bi léegi itam ngeen di ko jëf ci moom di ko jëf ci njaboot sëriñ bi nii itam ñu di ko nuyu bu baax ndax daje yàlla dogal na nu daje fi waaye nag mënoon naa dem bañ a fekk ñu koy bii moom itam cofeel ci sëriñ bi cofeel ci njaboot bi cofeel ci sëñ Baara ndax bañ na ko ba gàmmuk Tiwaawan sax li ci ëpp bu ma sëñ bi daan yebal maam moom ñu mën bokk dem délégation dem ca dem ca kër gi sëñ Ba sëñ sëñ sëñ Ba sëñ sëñ Abdou si kon moom itam sëñ Moutala mi ngi koy sant ci ci ci ci kër gi. di sant la kër gi yëpp tamit ndax ñoo ngi tamit comme ni ma koy faral di wax rek sëriñ bi jëmut ñu bàyyi kër gi kon loolu da ngay wan ni sëñ ñu ndax ba sëñ bi toog ci na moom mii fekk na bi bi bi wane dinaa yëpp xamante boobu dama dugg ci léeg ma di ko toll waaye waaye waaye loolu lépp xaritoo bu ñu séq bu séq ko ak kër gi loolu moo ñu ko war rakkam yëpp itamit nag nañu meloon ci sëriñ bi noonu la ñu mel fii itam loolu noonu la jóge fii itam kon moom itam sëriñ baa ngi lay seere ak cantam ci ginnaaw bii nga xam ne yàlla dogal moom fekk ko te bu ko soogoon kat ba siyaaree rek mu génn dem du fekk si jotaay bi waaye cofeel ci kër gi moo waral mu toog